amul ndox ngente amul courant ngente amul carte de santé jigéen ñi buñu bëggé am doom ku ci yeex wasiné sa kër té bo wasiné sa kër mën nga dem mba sa doom dem té mën na ñak sonn nañu tàyyi nañu té dañuy talal ndey xadi mi ñu lay talal suñu loxo té di la nga dimbale ñu jàppale ñu ndax naxaate yi dafa doy ñun nag amuñu ku dul suñuy doom suñu doom yu góor yi lañu am bu ñu newoon teg leen fii ñu rey leen ñu tëdd ndax yaakaaruñu kenn ku dul suñu doom yi ba waral na ne ba moo tax suñu doom yi bu ñu ko bu ñu forme karaamee nii ñun dañ ciy dem ba jeex ndey nag yow lañu teg fii yow la ñu gisati waaw dañoo bëgg nga jàppale lañu amuñu yoon amuñu ndox amuñu courant tas de santé bi ku ci yeex wasi nak sa kër sa doom dé ba nga dé té man na ñam loolu man amna ci poloor bu leer man sama wuju pétier bu amna fi ta bo xamné bi touti bu faatu ci biir kër gi man ma and ak mom ba biir kess apa ñuy dem kess xaw nañu dé té ñak case santé moo waral ñàkk sécurité moo ko waral amuñu benn sécurité biir ngente amuñu dara dara dara ba dara booloo ku la dara ngi fi ñëwal fu nga xool biir ngente yoon amu fi comme ni ko Daouda Dione waxee boo waajoon tey taseet di dem taseet dangay fanaanee xalaat ba ni kuy waaja da ñëwmal fi yàlla te yoon naqari moo ko waral sonn nañu tàyyi nañu suñu xale yaa ngi ni xale yu góor yi benn mbor mënu fee euh, résilier parce ku fi ñëw di entraîné ñu tere la te dañ leen a war a daggal teere ñu fay foyee ku fow looy mën a football école yaa ngi mel ni ay waañ baaxul sant yàlla boo xoolee tabax yi bu ñu génne télé di nga xam ne li ñuy wax waxuñu ko pour ay foo waxuñu ko pour nekk fii di wax lu neex nit ñu jëriñu kenn. dañoo sonn ci naxe bi. nax nañu fii dañ ñuy may projet nañ la jënd suuf bu ñu may ñu suuf gisuñu leen jël nañ fii suñu 2000 jéeg bu ne 2000 ñu yóbbu ñu taseet ci nawet fa la ñuy yenn jot ñu ne tey la ñuy jot xaalis ñii di jënd caméra pour dugg seet pour bu ñu leen joxee xaalis ñu dugg ci seen poset bi fa la ñuy yenn ba fa la ñuy tawte gisuñu dara nday xadi gis nga ngeen séeréer yoon bu baax amu fi amuñu yoon amuñu case de santé man mii di wax ak yow weer laa am xaw naa fi dee dama avorté ci saret lañ ma dugal damay sotti deret ba eggu naa ñu war maa opéré muy taw yoon amu fi li ñu fi dajale tey te mu concerné benn zone ci biir commune Tassette bi nga xamante ne dafa composé cinquante et un village ñu mën ci lim lu demee ni ki village yu Ngent Séeréer village yu Ngent Olof Ngent Tukulóor Diamaguène Séeréer gën fël Kër Dàmboor Kër Laay Bungel Ngay Ngay Kër Yoro Dia Seeseen Jaag Kër Mangaari ak Jeleng ñëw ñu fi pour contre gouvernement nii le président Macky Sall wante kii nga xamante ne ñun ñoo ko fi teg te ñu wóolu woon ko jàpp ne buñ ko fi tegee dina nekkal askan wi mu nekkal boppam askan wi nag sonn nañ ci dinaa dynamique te kenn du ci gis dara ci village yi ma wax amul benn village booy dem ñu mën a joxoñ lenn ni lii ci commune bi lañu ko am lu dul ay nax gese ndax it damaa jàpp ni loolu mooy suñu gëm-gëm lépp li population bi di bëgg muy lu ñu yelloo ñu àndandoo bëgg la leen te nekk ci seen kanam nag lu mu laaj incha allah dinañ ci def lépp lu population bi di bañ te benn leen ko teg ngir bëgg taxaw xeex loolu bañ loolu te teg dëgg réew dëgg la ñu nekk. te pour gox soppeeku nañ ko teg ci dëgg mais ñu teg ko ci njub ak nangoo liggéey li askan wi moom ñu delloo ko askan wi teg ci ñun li nga xamante ni moom la ñuy nax doole leen ndax fépp fu ñu mën a taxaw ñoom ñoo nekk ci suñu ginnaaw doole leen kon bu ñu amee wax ci lépp lu ñuy mën nekk nañ leen bàyyi xel.